asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 29 juin 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko tey mu mel ni ki yëglikaay ba nag moom tey la mu xëy ñëwati maanaam guy gi la xëy wan saa rëg-rëg nekk ca digg ba mu mel ni ki nag rëg-rëg moom mu la nga xam ne nii moo di takkab dugubam wala saqab dugub yaa xam loo koy tudde waaye la am ba des daal moom la ñuy wutal ku mu bëril ci diggante saa ak guy gi mel ni ki nag saa moom nee na juróom benn fukki million maanaam 60 millions bees ko ko joxul xalaatu la wàcc ci géew bi naan day bëre ki nga xam ne moo di rëg-rëg mel ni ki jamono jooja nag ñëpp bëgg combat ba di waa Vox Arena tamit am nañ beneen solution boo xam ne ñu ngi koy wër solution ba nag du kenn ku ka nga xam ne moo di ba tey guy gi bu géejawaay moom itam la ñu bëgg mu daje ka nga xam ne nii moo di rëg-rëg léegi comme ça Thiès d'accordul mel ni ki nag rëg-rëg mooma wala guy gi mooma itam mu ngay laaj moom itam 60 million waaye ki nga xam ne nii daal moom moo di nas di ab manager am wala boog yor ko di kilifaam moom mu ngay jéem a arranger mbir ya ngir xool nu ñuy taxawee ba combat ba mën a am loolu sunu lamb xëy tey wax nu ko waaye waa Vox Arena moom daa mel ni ñoom lu leer daal wax nañ ko nañ ki nga xam ne daal moo di Sa Thiès bëgg nañ mu bëre waaye daal ñeent fukki million moom mu ngi ñu teg ci taabal ji ngir mu daje ak ka nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg mel ni kon daal lamb ji fi mu nekk nii jax moom def na ko bu baax a baax wala mu ngay waaj a jax boog di bëgg a tàng ka nga xam ne nii moo di Pape Sarr ak groupam bu bees ba nga xam ne moo di jimbo daal Pape Sarr itam ñëw na de Pape Sarr daal combat ba nga xam ne taxawal na ko combat ab ñaari jàmbar ay xeex kat muy buur sin ak ka nga xam ne ni moo di mobile bu garaayof te yemu ca ne na nekku bu lan Sarr itam ñu ngi koy wëral koo xam ne dañ ko koy booleel mu mel ni ki Pape Sarr itam ñëw na ak lu bees teq teq fas yéene soobu ci lamb ji bëreeloo mbër yi keneen koo xam ne nii wala beneen écrit boo xam ne nii moom maanaam doxalin ba wala boog rang ba jubbantiwaat nañ ko ginnaaw ba Papa Sow demee léegi nag Gris Bordeaux moo continuer nekk tête de file ba waaye waaye Forza nag moo ñëw nekk deuxième place ba daal rango taa la nga xam ne nii mooy ñaareel place ba daal moo ko rango lagros ñëw giri de Serigne ñëw mu mel ne ki daal kon Fass fi mu nekk nii doxalin booba moo fa am ti bees ka nga xam ne moom fa la nekkoon Cheikh Fass di booy naar léegi nag moom nañ mu ngay dund fa nga xam ne moo di ca France moo tax ñuy laaj ndax moom booy naar mii ndax wanul làmb ji ginnaaw keneen koo xam ne nii moom soonul làmb ji ginnaaw itam gëj naa bëre wala mu gëj am ndam juróom yoo xam ne gëj na koo bëre mu toog ko muy bis mi ndooy mi ngeen xamoon ndakaaru xam ko ca Soumbédioune moom tamit daal gëjës na koo gis li nga xam ne nii moom moo di làmb ji mu sëgg bëre wala mu takk ngemb keneen koo xam ne nii moom mu ngi takk ngemb di bëre muy garga mboose rakki sos yëglikaay bi di sunu làmb xëy ba tey la laaj ci moom garga nag moom la ñuy laaj wala boog la yëglikaay ba jàpp mooy nekk na mbër moo xam ne daal boo koy déggee muy wax comportement ak na muy doxale maanaam du la jox leen lu dul mbër moo xam ne VIP la maanaam daal loolu lay dund ci personnalité am ak i doxalinam ak li nga xam ne nii moom moo di ay waxam donte sax kay na ci wàllum palmarès yëggagul carrément ca VIP waaye comportement moom boobu daal lay doxe bu teg ci aw yoon wala boo xam ne ci aw yoon la ko teg yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne moom ay teg na ko ci aw yoon muy booy Dakar ma nga xam ne mu nga fa nga xam ne nii moom mooy ca Grand Dakar di xale boo xam ne mu ngi ci lamb ji di combat di victoire yëglikaay bi ñëw na ci moom ak karawaase goo xam ne daal fi mu nekk nii mu ngi koy xiir ak yaram di demu yoonam moom booy Dakar di xale boo xam ne daal bu jara bàyyi xel la ci làmb yëglikaay bi di suñu lamb xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii moom mu ngi ci lamb ji bëriwul ñu daan ko muy big pato police mbër mi ngeen xam léegi nag moom am na xarit bu bees teq muy Modou loo roi des arènes daal fi mu nekk nii moo di ab xaritam bu bees ba nga xam ne nag ñoom ñaar sax entraînement yëglikaay bi nag ñoo koy bokk di ko partager léegi di ko def ca salle mel ni ki nag sax yemuñu ca ñu ngay jël ay ndimbal ay donc yu mel ni ki noonu di ko jox ña nga xam ne dañu koo yeyoo daal loolu mooy li nga xam ne nii moom la ñu yëglikaay bi di sunu xëy tey andil ci moom dañ fay jóge nag taxu dem fa nga xam ne nii moom moo di ca record record moom combat ba nga xam ne taxaw na dox ci diggante Tyson 2 ak ka nga xam ne moo di Franc ka nga xam ne moo di raay moom mu ngay dànkaafu Franc ne na ko da nga tey ci Tyson 2 mbër la moo xam ne nii day technicité ak xam-xamu bëre am na ko ba mu doy sëkk sëkk sëkk Abou Ndour moo séq moom waxtaan mu mel ni ki ba tey acti la l'arène ba tey ca record itam ñu ngi ñuy xamal ne daal ki nga xam ne moo di jili wàdd léegi nag moom mooy manager bu bees bu ko nga xam ne nii moo di guy gi bu géejawaay ka nga xam ne nii tamit moom moo di Eumeu Sène ak Bombardier mel ni ki tamit daa mel ni est-ce que mu ngay yëngutu Garga numéro 2 ak Mama Lamine bu Lamsar Vox Arena xamal nañu daal combat ba nag taxaw na de ak titre de l'arène moo nu ko xamal fa nga xam ne nii moom moo di ca record mel ni ki daal fi mu nekk nii moom mbir yi li muy xeeñ daa mel ni daal su ñoree nar naa neex ndax ay combat ngi taxaw ñu koy wax ñu ngay dox ay ngan di yoo xam ne nii bu amee yaakaar naa daal corona bi rek moom moo war a am fulla ju toll ni daal dem léegi rek balaa mois de juin bee mat bàyyi nu fi ndax combat yi mën a taxaw xel yi dal mbër yi mën a bëre làmb ji mën a jax lii daal mooy ñaan gi fi mu nekk nii Mansour moo ko waa Leewtoo TV ñu lay nuyu di lay gërëm di lay sant Babacar ngay àndoon si revue de bi ñu ànd ak yéen nag si jàngatu arène Babacar maa ngi di lay ziar naa la tey ñaareel àddina a jëm am nga jàmm am naa jàmm bu bëre Babacar vidéo weekend bi am naa ay coup de fil yu bëre ñëpp ak may laaj naan Babacar nee ñun yow fan nga jàngee ndax ginnaaw bi nga laajee journaliste Leewtoo yëpp wax nañu ñoom fan la ñuy génnee yow nag ni ñu laaj ban école nga génnee waaw waaw fu la de mooy war nañ koo mën a laaj waaw man nag école de la rue laa def waaw man moom loolu laa def xam nga jàng naa nag alxuraan wax dëgg yàlla waaye waaw pour ban français nag moom na leer tooguma ci de waaye def naa école de la ri waaye nag lépp lu tubaab bi bind moom bu soobee suñu borom danaa ca def samay soxla faj ko ca de du ko laaj kenn loolu tam yàlla may na ko ma koy sant yàlla waaye nag moom ambilaana wanteer naa fëgg jaay maanaam daal <laughs> moom waaw ba pare itam nekk gu nekk kaw kaw yii moom jaar naa ci ba pare muy micro bi lu ma bëgg la te métier mu ma doon ndey kumba même boo ko jàngee ba am ci ay kayit bëgg ba da ci am solo trop maanaam boo bëggee dara di ca sonn bu dégg bëccëg bu yàggee mën nga caa doon dara loolu moom am na solo te mën naa ko seelee ndax des fois sax yaa corrigé yàgg maar bi nga xam ni moo génne école de journalisme ñu ñëw nag si sunu làmb sunu làmb nag tey dafa xëy nag ak combat bi nga xam ne moom mooy lëmbee fan yi euh, actualité làmb ji muy diggante guy gi ak ki nga xam ne moom mooy Sa promoteur bi nag mi ngi waxanteeg ñoom guy gi nee ñu ki nga xam ne mooy nas nekk euh, presque frère ki nga xam ni mooy guy gi moom nee na pour sauver combat bi bëgg na daal Euh, wàññi cachet bi maanaam daal def ay concession ba combat boobu mun a taxaw euh, Babacar. waaw muy combat boo xam ne tey boo xoolee Sa Thiès ak ak Reug Reug lañ bëggoon. mais dafa mel ni Sa moom 60 millions wala du bëree ak rëg-rëg loolu lay laaj mel ni kon tamit euh, plan A bu amee bu bu li ngay def mooy jéem seeti plan B. plan B bi tamit ñoom tamit mais nas fas kon ñoom daa mel ni ñoom wax ak ñoom dina gën a yomb donte 60 millions lañ laaj mais daa mel ni nas dañ ko déggee daa mel ni moom ku wax ak moom dina wàññi loolu nag defe naa ne lu war a mën a nekk la parce que tey lamb ji toll na fi nga xam ne tey bëggaat guy gi ak Sa Thiès wala boog Sa Thiès ak rëg-rëg mënta sotti ndax kase ñu dem ci guy gi defe naa itam war nañu mën a waxtaan ba déggoo pour combat bi war a mën a taxaw ci fekkee tan déggoo nañ mais nag daan nekk mbir mi nga xam ne mbirum jënd ak njaay rek ku nekk am nga droit réclamer li nga bëgg a jaayee ak ki kay itam kiy jënd itam wax li mën a fay mais loo ci mën a déggi daal ñu bokk teen bi ñooy laxasoo goj nañ fexe daal goj yi laxasoo ñu làqar ci ko ba ku nekk mën a root jukki yóbbu sa kër Sénégal jëm kanam loolu am na solo Babacar nag suñ jógee nag si combat Gouye Gui ak ki nga xam ni moom mooy euh, Sa Thiès wala boog ak rëg-rëg ni ngi ni euh, ngi euh, journal bi tam mi ngi xamal ne fas ginnaaw ba Fass soo demee defaraat nañu daal écurie bi maanaam nee nañu Gris Bordeaux moom moo jiitu ki nga xam ne moom mooy Forza moo si topp ñeneen ñi nag muy Ragrose Gris 2 Serigne Ndiaye ñoom daal presque noo tolloo kenn rawul sa morom waaw dafa mel ni loolu moom mooy li nga xam ne nii lu xel war a mën a nangul parce que tey Papa Sow ku ne xam na ne moo Gris Bordeaux ñoom ñaar fa nekkoon bi fa Papa Sow di nekk pa Gris nekk numéro 1 bi Papa nekk muy lu yàgg a yàgg tey Papa nag yàlla def na mu ber daaraam ca koñam ba mu dëkk muy parcelle ñu ko cay ñaanal réussite rek comme ni ñu koy di ko ñaanal képp ku sos écrit tey nag bu demee Gris Bordeaux continué nekk tête de file ba Forza nekk deuxième place bi defe naa lu tam jaadu ci charisme am ak ci faydaam ak yooyu may na ko loolu te itam am na loolu wane na ko si làmb ñoom lagros ñëw di ay rakkaam ak ñoom Serigne Ndiaye de ak ñoom Maodo ñoom ñëpp defe naa itam kon daal loolu mooy làmb rek mais li ci gën li ci ëpp solo nag mooy liggéey rek waaw pour être leader moom il faut liggéey bu baax a baax a baax a baax liggéey moo koy joxe daal. leader moom jaa rek si ay wax si ay jëf la tamit. ak si ay dafin euh, combat bi nga xam ne beneen combat boo xam ne moom taxaw na si weekend bi te Pape Sarr promoteur moo ko taxaw muy diggante mobile 2 ak Bour Sine euh, Babacar muy combat bu neex. Pape Sarr dama koy njëkk jéglu ba pare parce que ndeysaan woo na ma bay bëgg a dee pour jour bi ma ñëw teew mais gis nga yàlla def déggantewuñu léegi déggantewuñ ba affaire ya far bi démb la ma mujjee waat di ma woo kon Pape Sarr notre frère maa ngi koy jéglu baax a baax di ko ñaanal yàlla lii mu dugg nii tey parce que li may wax rek ba tey daa bokk ci mbir mi te ku bokk ci gétt gi naan ci meew parce que nekk na ci làmb euh, di ànd ak ay mbër di défendre couleur Pikine ku ne xam ko ci mu fesal ko ba tey yàlla def mu ñëw nekk promoteur ñu koy ñaanal yàlla mu réussir ko taxawal na combat boo xam ne tamit ñaari jàmbaar lañ ndax ku ne xam na ne ñaari mbir yi mu taxawal ñoom ñaar dama naan moom defet interdit la tudde bii combat muy buur si ndax ku ne xam na ci ñaar defet yi mu teglante ki nga xam ne ni moom mooy mobile tamit ñetti defet yaa ngi dégg waa Grand Yoff di ko xaar ba pare euh, année bi passé bariwul kon defe naa ne fi mu nekk nii ah ñoom ñaar moom li ñuy wax rek fi mu nekk nii moom liñ naan tey nga mën a fecc mbaa nga dee tànk bi dam moo fay am ci diggante mobile ak buur siin waaye nag lépp sport la ay xale lañ waaw Euh, yeneen bu journal yi ñëw nag muy dig euh, muy Bismi ak ki nga xam ne mooy Boy Naar nee ñu Bismi moom toog na 7 ans muy juróom-ñaari at yoo xam ni euh, takkul ngeem keneen ki moom muy Boy Naar moom tamit la même chose at a ngi nii mu demee France daal toog fa. waaw daa mel ni ñoom ñaar ñooñu ndax <laughs> dafa mel ni seen àtte sorante wut muy Boy Naar ak Bismi xam naa néew ma bàyyi nañ làmb ah parce que wax ko day rëy parce que déggaguñ ñoom ñu wax ko waaye daal xam naa ne sori nañ làmb ji ak tellement parce que tamit li tax mooy leen a gis ñu wàcc ci làmb ji yu mel ne ki noonu quoi suñu njegee nag sunu laam dañuy dem fi nga xam ne moom mooy record record nag eh, si xalima bëgg naa nga ñëw ci parce que Garga Mbossé eh, dama bëgg nga ñëw ci moom waaw parce que dama gis journal bi tey xëy ñëw ci ki nga xam ne nii moom moo di Garga mboose ak comportement boo xam ne jàpp na ne am na ko ci làmb ok Gargamos daal li ñuy wax sa journal bi tamit nee na Gargamos dafa nuroog ak euh, VIP mais xaw na nuroog ak VIP maanaam suñuy lim VIP mën nañu ko si dugal mais soriantoo na ak VIP si wàllum ak aussi ak mbër yi nga xam ne woon moom la war a bëree moom la journal ñoo tey si sunu laam xam naa ne moom Gargamos moom mooy loolu daal. Euh, waaw non parce que boo gisee ma ne ñu ñëw ci sax parce que li ko waral mooy comme loolu ñu bind doo sore na ak VIP ci kase yaa ngi dégg sore ak ñoom ci côté adversaire waaye maanaam comportement am personnalité am ak kàllaamaam jox na ko loolu yaa ngi dégg maanaam nit la bi nga xam ne donte tey yëggul ci kase bi nga xam ne moom la Balla Gaye di fayeku wala Modou Lo di ko fayeku wala Gris Bordeaux wala Eumeu Sène wala Lac de Guiers mbaa Tapha mais terewul moom comportement may na ko tey mu pré mu représenté loolu ci taxawaayam ci waxam ak léppam loolu nag li koy indi mooy rek damay jàpp ne yar la moo koy waral ci doomu aadama bi et tamit la waykat boo xam ku xeebul sa nguur te nit ku ne yaay def sa bopp VIP pour man nekkul sax si kase bu ñu lay fay mais comportement la ak jëf ak taxawaay ak nit ki ni muy doxale quoi waaw loolu am na solo ko mën nañ dem si record record nag si xalima Abou Nour mi ngi dalal ki nga xam ne mooy Rayba Rayba bokk si Luc Nicolas Enco euh, moom nag mi ngi araftu ki nga xam ni moom mooy Franc nee na euh, Franc na moytu bu baax Tyson 2 parce que mbër bu technique la waaw loolu mu wax day am na te itam defe naa ne képp ku nga xam ne nii xam nga làmba xam Tyson 2 di nga xam ne day boo waxee rek te ba mi defe naa ne ñu koy nuyu di ko ziar sama grand sama mag borom Mbour séeri filo wax na xam-xam waaw wax na xam-xam parce que lu tax mooy Tyson de ndaanaan la bëree mbër dëggantaan njaay la waaw dafa fekk ne nag làmb dug maas dabante la tey xale la ba nga xale la ab xale liggéey ba dab ko ñu boole leen muy franc franc itam capable na pour daan mbër mu nekk pour man par rapport ak li muy wane si làmb waaye daal li ñëpp wax mooy dëgg am na adversaire de muy Tyson 2 waaw journal bi aussi mi ngi xamal ginnaaw nag sunu papa Mor Fadam ah, bu ma génnee àdduna nee ñu nag am na guy gi am na manager bu bees mu ngi tudd Jibi Jiliwaad. waaw Jiliwaad moo ko yore léegi parce que loolu la ñu wax parce que ku ne xam ne ne Pala Diop moo ko doon manager après bi yàlla def ñu tàqali ko mu mel ni Mor Fadam jotoon na ko kii yàlla na yàlla yërëm ko te jégal ko mel ni nag utaat na kon ku bees ku yore licence am tey muy Jiliwaad ñu leen di ñaanal rek réussite ci loolu parce que ànd euh, euh, maanaam euh, du maanaam nit ku nekk dañ ne maye kala neex. waaye ndénkaane ko wóolu noonu la fa demee kon moom tey kii la wóolu pour jox ko licence am ah lam cay wut yàlla na ko ca fekk. amin Babacar gannaaw nag eh, yenn combat yi nag nee nañu ki nga xam ne mooy Vox Arena taxawal na Garga 2 ak eh, Mama Lamine. waaw Vox daal man maa ngi leen di remercier daal parce que itam loolu day bés la. yàlla na corona na corona dem parce que Vox yi itam ni ñu ñëwee nii am na solo de yàlla nañ ko réussir laay wax parce que itam nag combat yi ñuy taxawal yëpp lañ ñu bëgg xam nga ne Tyson 2 ak Franc ñu ne déet na waaye nga indi Garga ak maama la ilaha loolu bés la waaye maama it la ma wax Tyson la ma wax Franc laa koy wax am na adversaire moom it nag waaw Garga 2 la am de. waaw ko loolu am na solo nag si kàddu yoon leen tàggoo balaa boobu muy nuy sama yaay mees nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu euh, astaan ne déjà Brahma Chéri Khadija Diallo nuyu samay butchu Mame Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne mooy Grand Fallou nuyu Asek Chéri Khoudia Seck euh, depuis Italie yaa ngi si biir Abdou Gueye depuis États-Unis Baye Fallou Diamaguène papa yi Siteu maa ngi lay nuyu la jox sa wàccuwaay euh, Asi Diagne aussi sama mbokk naa bi aussi maa ngi koy nuyu Babacar. Asi borom nu ak sot mais noonu lay demee dañuy nuyu ñëpp rek di tamit tey damay jaale ku nga xam ne daf ñuy suivre depuis Brésil ñu koy wax Cheikh Fall. ah dëkk benn dëkk bu ñuy wax Ndiongue Fall nekk fii ci ay Kajoor ak Njàmbur fukk foofu daal way juram Babacar nga baal nu rek di jaal aussi waa Fass Alassane Diakhaté bi nga xam ne moo génn àdduna semaine bi euh, samedi bi nu génn waa Fass ni ngi fa woon euh, rob nañ ko foofu si cimetière Yoff Bala Diouf moo jox information maa ngi jégalu lu bëri yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko loolu di yëguma ko yaa moo ko wax Alassane Diakhaté ndeysaan nekkoon ku baax ku mënoon a sonn tamit ci yore ay xale ay mbër yàlla na ko yàlla yërëm di ko jaale ay doomam yëpp ñoom kara ak ñooñu ñëpp di ay doomam parce que yàlla def noo xam ay doomam ci laay continuer noonu jaal ki nga xam ne moom mooy Cheikh Fall tamit ah di jaal waa ñi nga xam ne ñoom euh, yëpp la nekkoon comme commerçant ñu koy wax Basirou Fall kon ñu yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di ko jàll ñoom kon Cheikh Fall ci Brésil daal maa ngi koy jaale bu baax a baax way juram waaye tamit comme ni ñuy wax rek addinaa tëdd nii fii day neex fii naqari fii neex fii naqari sama benn xarit bu ñuy wax Habib Ndoy nekk ca États-Unis ñu ko doon may soxna ce euh, weekend bi ñu génne di ñu may ko rakku ki nga xam ne ni mooy l'international sénégalais bu ñuy wax nday seen bu nekk UGB rakkam bu jigéen lañ doon may sama xarit ki nga xam ne ni moom mooy Habib Ndoy rakk ji tudd Kiné Sène kon madame Ndoy am barke barke yonente sama sœur sama rakk rakku Youssou moom itam ko doon maye jeudi passé muy moom mooy Mami Ndoy di ñaan sëy yooyu yëpp yàlla na ci yàlla def barke ñi dëddu tamit yàlla leen yàlla yërëm xareel aljana nday ko xam naa sëy bi des nag sama diggante ak lay doon pour ñaareel du mën a ñaak ba suba incha